ayca li gën a fas ci xëtu yéenekaay yi comme nu ñu koy defee saa su ne bu waxtu bi jotee Fall euh, ndaanaan <laughs> wala Fall pexe ñu dooree koog l'observateur Euh, non tey bàyyi ma doon fal pexe comme que sama écran bi maa ko maa ko indi tey. <laughs> da ngaa nag. Euh, ñu ñu waaye li nga wax lu am solo la papi maman maman père ak ñooñu xale yi dañ ci bàyyi xel. <laughs> ayca boobu ndax mbas mi ñoom lay gën a sonal. ayca ñu doore kook l'observateur l'observateur ci xëtam bu njëkk nee na li nga xam te ni moo di politique bu confidentialité bu WhatsApp bi maanaam di politique gu bees bu WhatsApp jël moom parti politique yi nag ñoo ci nar a gën a loru ndaxte boo dee xool kon li nga xam te ni moo di seen i wàllu données ñoom ci parti la ñuy buñ koy séddoo buñ koy euh, génnee ci biti ñoom lay gën a Wule Ndiaye looloo waral nag ñu laaj ci ki nga xam moo di Pastef réew mi ak AFP lu ci xalaat euh, gone gu jigéen gi nga xam te ni moo jëloon meilleur élève ci Sénégal ñu ne nag ki nga xam moo di Émile Bakhoum euh, bu cellule CRUS ci nga xam mooy wàllu euh, disparition bu Horizon Sans Frontières moom tamit nga xam moo di Boubacar Seye l'observateur génnee ci moom histoire boo xam kenn musu ko nettali Covid 19 wàllu loi bi nga xam indi nañ ko ñu bees ñu ne nag dëkk bi jamono ji euh, ci wàllu gestion catastrophe ak crise sanitaire ca la ne assemblée nag kon moom fu mu ne nii amul benn pouvoir ci wàllu contrôle wax ci li nga xam te ni moo di euh, Boubacar Seye mi nga xam te ni moo jiite Horizon sans frontières ñu ne euh, yóbbu nañ ko rëbës enquête ba tey ci xeex mbas mi nee na nag li nga xam te rek moo di impact mitigé ci religieux maanaam wàllu diine boo xoolee kon yëfi daal kenn xamut na muy na muy leere ñu wax ba tey ci wàllub coronavirus ñu ne kon couvre suñuy limite wax ci li nga xam te ni moo di Boubacar euh, nga xam te ni rek moom dañ koo teg loxo moom yëkkatoon ay kàddu ni euh, nguur gi euh, téeméeri milliards rek fukk ak juróom-ñett yu Union européenne yi dañ koo sàkkal pexe. Les Échos wax ci waxu jaari sew ñu ne kon mi science moom nag jamono ji baax elle va bien maanaam elle est saine sauve lañ doon ragal daal amut moom jaari sew kon mu ngi ci jàmm ñu wax ci doyen des juges mi nga xam te ni rek Ousmane Sonko plainte ba mu defoon moom daal dañ koo clancé sans nii Wade jamono ji mu ngay seet virus ca kër Macky Sall PDS nag moom daal di nay euh, daaxul sax génn ay experts yoo xam te wala mu génn ay experts dàq na ay experts étrangers yi la ñuy sàkku moo di kon euh, li nga xam ni moo di euh, teewaayu opposition bi bu am solo. li nga xam te soleil moom na ne état d'urgence loi bi daal di nañ koy yaatal ñu ne dugg nag li nga xam te ni moo di ñetteelu régime juridique bi mooy wàllu gérer lépp luy catastrophe naturelle ak li nga xam moo di wàllu mbas mi nga xam te ni day laal wér yaram euh, source a euh, wax ci li nga xam ne moo di fichier bekk tolluwaay gi ñu ne nag kon développement yu mujj yi euh, libération nee nañ plainte ba Sonko defoon kon moom daal del nañ ko daal di dugal ci turwaar yi populaire benn weer boo xam te ni ñu ne nag ñu ko dàbbali kon ci diggante Ndakaaru ak loolee daal mooy li ni mooy li ñu teg ngir xeex mbas mi mu nekk kon ci wàllu session catastrophe ak crise sanitaire Walf Quotidien nee na état d'urgence ak état de kon jeex na Macky nag jamono ji am na beneen régime bu nga xam te ni moo di Sud Quotidien nee ci wàllu commercialisation muy gerte geeg ñoom seen nee daal wii ak mais waaye producteurs yi daal dafa mel ni bégguñu la Sénégal ñaareelu dëkk ci Afrique de l'Ouest boo xam te ni moo ëpp ñi faatu ci mbas mi témoin nii euh, ci wàllu wax joo xam te ni protocole de Paris ñu ne ci diggante Macky Sall ak Idrissa Seck euh, journal bi di record jël Antoine Bell mu ne daal euh, boo moytul Ahmad Ahmad li ko dal dinañu dal ñun ñëpp nga xam moo di stade wax nag diggante kii di Ronaldo ak kon day laaleeg Naples ci tey ji sunu làmb ñu ne xeex mystique technique ak staff ak yooyu euh, kon Max Mbargane daal mu ngay wax ci làmb Modou Lo Ama Baldé jeexale ak nag li xam te ne mooy suñu proverbe du jour ñaari kuy ñoo bokk mbalka <laughs> Mout <laughs> Fall vraiment. merci beaucoup yow tam da ngay def da ngay def proverbe du jour. <coughs> moo xam nga moo bu ko waxee ci nasaraan. yow nga ñëw wax ci wolof ñaari kuy mënuñoo bu fekkee mën nga koo firi ndax bu démb bi moom amoon ngay jafe-jafe lool ngir firi ko. waaw bu démb jafe woon <laughs> merci beaucoup Modou Fall c'était la revue des titres.